fanweeri maam jaara ak juróom-ñett ñoo mokkale alxuraanul karim ci daara maam jaara ji nekkee ci poroxaan ci atum 2021 bi ginnaaw mokkal gi nag dañoo ñëw fii ci Touba ci mi nan ñu fas yéene jàkkaarloog jury bi nga xam ne dañ leen war a dégluwaat saytu seen ak mokkal ndax wér na wala wérut ñu amal ko ci tëralin woo xam ne gone gu ci nekk rek dina leen wér ni mokkalam kenn du ko lam laame ndax benn maam jaara bu ne dañ la booleek ñeenti jàngalekat kenn ku ci nekk teel fukki isib ak juróom jury bi nag ay boroomi xam-xam yu kawe ñoom ñoo ci nekk ànd ko commission suivi ak évaluation bi nga xam ne seri Mountakha Mbacké Bachir moom moo ko taxawal ngir ñuy topp saa su ne di saytu mokkalinu mam jaare yi nga xam ne ñooy jàngee ci daaray Poroxaan ji fii ci daarul minan ñu fas yéene fee def ñaari fan yoo xam ne ñoom fanweer ak juróom-ñetti maam jaare yi mokkal ñu topp leen ndax mokkal gi wér na am déet ngir mën leen a jébbal seeni lijaasa loole ñu fa yéene ko amal ci teewaayu mboole maam jaare yi nga xam ne ñooy jànge ca daaray poroxaan ja seenub lim ñu mën ko xayma ci ñeenti téeméer yu teg jotaay boobu nag moom lañ fas yéene amal ci daaru minan mu nekk sax jotaay bi nga xam ne moom mooy doon seen fin d'année ndax ci la ñuy jëlee seeni vacances kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen fii ci daaru minan ñu teewlu fanweer ak juróom-ñetti maam jaare yi nga xam ne ñoom lañ fiy topp saytu seenuk mokkal alquraanul karim wér na wala déet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 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuun ulaa'ika alladhiina ishtaraw ad-dalaalata bil-hudaa famaa rabihat tijaaratuhum wa maa kaanuu muhtadiin sadaqallaahu al-'aziim a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa in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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إن إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kitaab kama bada'na awwala xalqin nu'iiduhu wa'dan alayna inna kunna faa'iliin ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء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 إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون laa a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma a'budu lakum diinukum waliya diin